assemblée nationale levé na ko malaana kiiraay Ousmane Sonko assemblée nationale dindi na ko mu war a may yoon euh, mu def euh, lam ca bëgg woolu ko enquête ko Ablaye lees mën a xaar ci minutes yi ñu jëm ak waxtu yi ñu jëm euh, li ci des kay mooy nekk na ci disposition yoon parce que bu ñu informé procureur moom moo bindoon garde des pour mu ñaan assemblée nationale levé na ko malaana kiiraay Ousmane Sonko assemblée nationale dindi na ko mu war a may yoon euh, mu def euh, lam ca bëgg woolu ko enquête ko Ablaye lees mën a xaar ci minutes yi ñu jëm ak waxtu yi ñu jëm euh, li ci des kay mooy nekk na ci disposition yoon parce que bu ñu informé procureur moom moo bindoon garde des pour mu ñaan